di uh, teewaat fii ci waxtu wi ñu leen di ñaanal uh, semaine jàmm ak suñuy uh, programme di leen nuyu bu baax a baax te leen di jox seen wàccuwaay ni ñu koy defee saa su nekk rek waxtaanee actualité bu waxtu wi jotee ci Télé média Médias dinañ ñëwit ci xibaar yi ak journal bi moo xam ci wolof ak français waaye it waxtaanee ci waxtaan bu yaa ci li nga xamante ne mooy feebar bi di coronavirus ak mesures yi nga xamante ne rek njiitu réew mi jël na ko mu soxal nag ci ay pàcc yu bëri département bu ci nekk am na lu la dalal ay boroom xam-xam ngir mën a fexe waxtaanee loo xamante ne dina jëriñ askan bi pàcc bu njëkk bi nag ñu uh, jagleel ko uh, ki nga xamante ne moo di médecin colonel mussa Dieng Sarr nekk directeur bu service national d'hygiène uh, moo colonel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay aram. jërëjëf dinañu ñëwaat ci moom ci kanam ñu ci ànd ak Pape Djibril Fall lundi bu jot Pape maa ngi lay ziar. maa ngi aram di nuyu colonel bu baax di ko masawu. di leen encouragé bu baax ci liggéey bi ñu def jamono ji. jërëjëf ci ñaareelu pàcc bi gannaaw vingt bi ñu dalal professeur Daouda Ndiaye kanamam miin ngeen ko du ñàkk ci suñuy plateau mu nekk chef service parasitologie mycologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bu fi teewee rek moom it ñu gën a waxtaan ci li nga xamante ne ñu ngi koy def ci ay jéego wala mu des ci li nga xamante ne mooy wàllu recherche gi du ñàkk bu teewee ñu gën ko yaatal ñu ñëw rek ci li nga xamante ne moo colonel maa ngi ko doon wax sànq. Mhm. mu di mesure yu ñu jël damay mujjee xamante ne sànq euh, le ministre des transports aériens di euh, Alioune Sarr wax na ko teewaayu euh, ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ci réew yi nga xamante ne tëj nañu bunt yi fii weer ngir fexe rek xeex feer bu ni noo gisee lu ni mel. waa jërëjëf nga baal ma rek ma nuyu téléspectateurs yi ñuy suivre Télé Futurs Médias actuellement fii ci Sénégal at ñëpp ci bisim réew bi nuyu tamit sunu compatriotes sénégal yëpp. di wax ni pour euh, ñëw si sa question bi nga posé je pense que ni son excellence monsieur le président de la république a encore pris une décision très forte donc moom mooy décision boobu mooy comme ni ñu ko dégg ñun tey yëpp moom mooy vraiment arrêté vol yi nga xam ni dañuy jógee ci yenn pays yi nga xam ne actuellement foofu la infection euh, Covid bi vraiment samp dëggantaan donc surtout c'est les pays de l'Europe et un peu quelques pays de l'Afrique du Nord kooku nekk na tamit euh, vraiment décision bu mag boo xam ni vraiment aussi ñu ngi koy dellu di di ko rafetlu di ko rafetlu parce que dafay ñëw aussi pour gën ñu jàppale ci xeex bi nga xam ni moom la ñu jóg taxaw tem pour euh, xeex pour feebar bi ñu goûter ko hors de notre pays le Sénégal. bu ñu ñëwee ci euh, sa euh, fi nga jiite sa département. Mhm. service national de l'hygiène liggéey bi jamono ji ci ci ci terrain nu mu tëddee. waaw xam nga service national de l'hygiène dafa nekk benn service boo xam ne mi ngi ko nekk ci tutelle ministère de la santé et de l'action dafa nekk service boo xam ni li ko gën a xamee. mission yu bëri dafa nekk mission yoo xam ni mission maanaam faga faga fagaru maanaam c'est des missions de prévention mais quelque part aussi dañuy nekk tamit dans une posture boo xam ni dañuy participer dans la riposte loolu nag moo tax euh, feebar bi depuis que mu feeñ au mois de décembre en Chine si la ñu comme ni ñu ko xamee le comité national de gestion des épidémies bi nga xam ni mi ngi basé au niveau du ministère de la santé si la ñu ko réactivé nga xam ni bon foofu pratiquement mooy kuréel bi nga xam ni foofu la tous les acteurs principaux que ça soit direction yi nga xam ni ñu ngi si ministère de la santé institution de recherche yi maanaam laboratoire yi ak yenn département ministériels yi aussi ñi ngi si biir foofu la ñuy càmbare yëpp pexe ni moom la ñuy mettre xeex par exemple bu fekkee am na menace épidémie bu dugg depuis nag commission boobu ñu mettre que réactiver ko. Mhm. service national de l'hygiène dafa gën a taxawaat. parce que boo xoolee mesures yi nga xam ne aujourd'hui ñu ngi koy jël pour euh, xeex feebar bi en matière de prévention notamment ñuy wax euh, set ak sellal kooku dafa nekk mission boo xam ne service national de l'hygiène du si jóg mais actuellement nag dafa nekk loo xam dañ ko gën a taral. dañ ko gën a taral sur le terrain maanaam euh, boo xoolee au niveau euh, même avant que les premiers cas ñu apparaître au Sénégal déjà wow. les les les les agents dans les brigades nga xam ne ñu ngi dans les secteurs commencé woon nañu activité bi pour maanaam di jéem a xamal nit ñi pour ñu bàyyi seen xel bu baax ci feebar boobu ñuy dégg bitim réew di leen wax tamit nan lañ siy fagaroo pour bañ feebar bi dugg si donc yooyu dafa nekk activité yoo xam ne ñu ngi ko daan def dans les maisons à travers ci prospection yi nit ñi def di ko def dans les lieux de grands rassemblements mhm. notamment si yenn gare routière yi si yenn marché yi am na si yoo xam ne aussi ñi ngi ko daan def si si si si école yi mais aussi il faut dire que suñu présence ñi ngi si frontières yi parce que frontières yi bon xëy na yu ñu gën a fësal moom mooy euh, AIBD waaw AIBD maanaam aéroport euh, bu nekk Diass ak port aussi ñi ngi foofu mais il faut dire que y a les parce que frontière terrestre yi dafa nekk frontière yoo xam ni tamit nit ñi dañ fay jaar. te nekk na frontière yoo xam ni tamit bari na. mais présence bi ci voie officielle yi parce que saa su nekk dañuy wax it am na ay buntu yoo xamante ne nit ñi nañ fa porox ndool dugg. dëgg la dëgg la dëgg la te loolu sax dinañ si gën a bàyyi xel depuis décision bi nga xam ni tamit jëlaat nañ ko tey nga xam ni euh, kilifa réew bi jël na ko muy maanaam. dakkal vol yi nga xam ne dañuy jógee ci pays yooyu te xam nga ni pays yooyu ñu yëpp dafa nekk pays yoo xam ni foofu la sunu compatriotes yi gën fa bari bon ñun nag ñun ñëpp ay sénégalais la ñu xamante nañu moo xam nañu aussi Sénégal dafa xaw a bari pexe xëy na vol yi dootuñu ñëw mais am na ñoo xam ne xëy na mën nañu def ay voies de contournement léegi mhm. euh, euh, fi ñu lay fi ñu leen di a xaar service bi nga xamante ni koy jiite mooy contact bi mhm. ak les populations c'est vrai que dañuy tere contact jamono ji mhm. mais contact bi mooy yéen yéen a war a wax ak ñi nga xamante ni mooy askan bi mooy mhm. volet préventif boobu nga xamante ni ngeen taxawee ko tey jii ci euh, à l'heure actuelle par rapport ak directive yi nga xamante ni du Sénégal jël na ko ban approche ngeen am. Mhm. pour wax nit ñi ba ñu dégg ci ci contexte bi. waaw approche dafa nekk moom laa doon boo xam ni y a la communication interpersonnelle parce que xam nga service jeune aussi pratiquement c' des agents yoo xam ni c' des gens de terrain. Mhm. du ñu nekk presque si bureau yi bureau yi peut être bu ñu demee secteur yi ba am ñuy convoqué si la ñëw foofu mais sinon ils sont tout temps sur le terrain. Mhm. donc y a cette cette communication interpersonnelle qui se les les les euh, les les lieux de grande de de grand rassemblement notamment wax naa ko sànq les gares routières ak yenn marché yi déjà aussi si yenn école yi aussi ñu ngi koy visiter pour euh, sensibiliser écoles yi heureusement que sax jëlaat nañu beneen monsieur le président ba léegi tëj nañ ko mm. donc là aussi nekk na loo xam ne dafay nekk de côté mais n'empêche que la la la la la prévention la euh, la sensibilisation ça se poursuit au niveau de euh, ce que je disais tout di fàttali aussi nit ñi aussi les mesures parce que mesures yi aussi c'est important pour que nit ñi di si bàyyi seen xel surtout le lavage des mains à l'eau et au savon dafa nekk mesure boo xam ni yàgg nañ koy wax yàgg nañ koy wax parce que kuy suivre souvent service d'hygiène surtout par rapport yenn grand rassemblement yi les màggal at euh, gàmmu yeeg yooyu souvent dafa nekk loo xam ni dañ si Euh, sensibiliser bu baax. parce que dañuy distribuer même des kits d'hygiène. oui c'est très foofu c'est très bien. approche bi am na solo trop. mais pour impact bi. est-ce que ci contexte bi aussi. nga xamante ni dafa mhm. laaj ay ay moyens est-ce que jox nañ leen ay moyens additionnels ngir ngeen gën a mën liggéey def seen liggéey aussi bien. sur le plan humain que sur le plan matériel. bon actuellement il faut dire que le service national de l'hygiène ministère d' autres équipes du santé waa SNEPS ñu ngi si mm-hmm. te boo xoolee aussi dans les districts sanitaires mm-hmm. y des bureaux éducation pour la santé. Oui. donc ñooñu aussi ñu ngi jàppale ci liggéey bi. il y a aussi des relais communautaires qui sont dans dans dans certaines euh, zones. recevoir actuellement euh, les moyens sont en train de. d'être mobilisés voilà bëgg a xam. parce que il le faut ah du point de vue humain et matériel. voilà c'est ça actuellement quand les moyens sont en train d'être mobilisés. Mm. vraiment pour dooleel. Euh, le service national mais généralement tous les services du ministère de ni ñu ngi aussi participer contribuer dans mm-hmm. dans la lutte. Mm-hmm. ça peut être les sapeurs pompiers ñu ngi si mais exactement il y a l'élevage et cetera et cetera. Mm-hmm. actuellement euh, les moyens sont en train d'être mobilisés. pour jàppale leen par rapport. Euh, pour faire à si si moyen euh, matériel bi li li di wax. est que dafa nekk ay kit yu ngeen di distribuer wala dafa am lu ngeen di jox population wala ngeen di yem rek ci sensibilisation non c'est-à-dire que sensibilisation bi benn pàcc la si liggéey bi pour fàttali ñi ni ñuy raxasoo saabu di si bàyyi seen xel mais aussi am na si benn volet boo xam ne bu am solo la moom mooy nous sommes dans la riposte actuellement parce que xam nga comme kaay léegi dugg na biir Sénégal. Hmm. actuellement euh, y a les malades. Hmm. qui sont là dans les centres de traitement. Hmm. te centres de traitement yooyu dafa nekk des des des zones à fort risque de transmission entre guillemets. parce que quand yi nga xam ni moom la ñu war a garantir. lu ngeen def ci zone de traitement yi. voilà c'est-à-dire on veille à ce que le personnel soignant. Mhm. yi euh, suivre les malades. quil euh, portent correctement mmh. leur combinaison, mhm. les, les, les, équipements de protection individuelle, mmh. pour ne pas qu'ils qu de contracter, nous mhm. porter comme il le faut. également aussi euh, la désinfection des locaux parce que les malades aussi fu ñu nekk dañ koy désinfecter périodiquement plusieurs fois par jour. Mm-hmm. de même que que que que que les toilettes. loolu yéen yéenay dem def ko oui basées. Mm. actuellement il y deux sites de traitement qui sont déjà ouverts. il y mm. l'hôpital de service des maladies infectieuses et tropicales. de l'hôpital de Fann. Mm-hmm. où nous avons les équipes de bas mais aussi il y le centre de santé de Darou Marnane. Mm-hmm. à <laughs> foofu aussi équipe yi. ñi ngi foofu di def liggéey boobu nga xam ni moom mooy euh, prévenir pour bañ euh, le personnel soignant feebar bi jàpp leen ou bien même que aussi la gestion euh, aussi à la gestion euh, si maanaam. déchets yi nga xam ni moom la équipe de soins yi di produire ñu gérer ko comme il le faut jusqu'à l'incinération pour que mu bañ rëcc fenn boo xam ni mën na. Euh, wàllu keneen koo xam ne yoonam nekk si te mu léegi colonel seen seen liggéey dafa am solo trop mais jamono ji aussi mhm. jamonoy synergie d'action la c'est-à-dire ñu xool nan la ñuy boolee doole yi mhm. tey ji yow ci yan kuréel ngeen nekk actuellement nga xamante ni foofu mhm. ci ba ngeen dajaloo ba pare investir nañ leen ay mission yu bees wala dooleel nañ leen ci mission yi ngeen nekkoon ak mission yooyu nan ngeen koy dérouler tey parce que boo xoolee euh, le comité euh, jusqu'à présent comité national de gestion des épidémies laay wax bon comité boobu dafa nekk commission euh, comité boo xam ni réflexion stratégique donc c'est les décisions stratégiques foofu lay jógee mm-hmm. mais en dehors de ça au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire mu nga mm-hmm. xam ni moom moo nekk à l'hôpital de Fann le COS mu nga xam ni le docteur Ablaye Bousso moom moo ko jiite foofu mm-hmm. foofu am na benn groupe technique groupe technique boo xam ni opérationnel boo xam ni tout ce qui est activité opérationnelle. Hmm. foofu lañ koy gérer parce que foofu nag y' a plusieurs équipes. Hmm. am na équipe yoo xam ni euh, am na si euh, euh, commission yoo xam ni ñoom ñoo chargé lépp li nga xam ne moom la ñuy wax prise en charge mooy ñuy faje malade yeeg et cetera et cetera am na si boo xam ni moom moo yore surveillance bi maanaam naka la ñuy nemmeekoo nit ñi nga xam ni foog nañ ni. feebar bi mi ngi at moom na la ñu leen di suivre jusqu'à confirmer est-ce que réellement c'est ou bien si c'est un cas qui était un faux cas ñu libéré ko par rapport à la surveillance euh, am na tamit euh, commission boo xam ni foofu la ñuy wax euh, commission prévention ak contrôle infection donc loolu nga xam ni moo jëm lépp li nga xam ni moom moo jëm si euh, traité kër yi nga xam ni foofu la malade bi jógee. yéen a ngi ci kuréel yooyu. voilà voilà. yéen a ngi fa oui ñu ngi si parce que benn kuréel bi sax euh, prévention et contrôle de l'infection. boobu mm. service d'hygiène. Mm. moom moom moo ko jiite boobu moom moo ko jiite. Mm. parce que boobu bon ñu ngi siy travailler aussi avec waa Croix-Rouge. mais aussi avec la direction euh, de la qualité et de l'hygiène hospitalière nga xam ni mi ngi direction générale des établissements de santé. moom la ñu dénk lépp li nga xam ni moom mooy di seet. set bi ak set euh, ak setal bi si biir hôpital bi nan la ñuy a def yan stratégie la ñu war ba nga xam ni. Euh, infection yaa ngi yaa ngi Aram nga baal ma ma laaj ko benn question. Mhm. colonel yaa ngi yaa ngi mhm. la. waaw mooy bu ñu nee nit ki njort na ko wala amu ko ak yooyu. Mhm. tudd nga fi léegi gare routière yi. jël nañ ay mesures yu bëri. waaye gis nañ ne transport public bi. waay reste maanaam ñoo ngi dajaloo ci bus yi ak njaganjaay yeeg kaar yi ba tey. gare routière yi aussi. Mhm. problème yi ñuy gën a am. Mhm. ñoom marché yi. waaw waxuma la contact bi. Mhm. waaye toilettes yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk. ci côté boobu côté salubrité bi dafa des lu bari. surtout ci suñu marché yeeg yooyu. quelle est la nouvelle stratégie dans ce sens. mais loolu moom mooy sensu descente yi nga xam ni agent yi moom la def au niveau si si si si bërëb yooyu parce que pour rappeler leen. les les les les notions les comportement yi nga xam ne moom la ñu war kii bu ñu si mbooloo mi yooyu yëpp si la bokk loolu yëpp si la bokk non la ñuy gérer seen environnement comment il faut gérer l'hygiène dans les toilettes et cetera et cetera pour bañ euh, jële fa benn feebar au-delà même de de de du coronavirus il y a d'autres euh, d'autres maladies yoo xam ni avec euh, comportement yooyu bu ñu leen ko buñ buñ ko adopté yàlla mën na def. mais loolu mais loolu xam nañ ko waaw est-ce que est-ce que am na ay daan est-ce que am na ay daan parce que souvent yooyu dañ koy xam. te nit yi am na ñoo xam dañ koy transgressé wala ñuy def lu leen neex. te kenn sañu leen du wax dara. non non non bon en fait euh, je sais que actuellement contexte euh, bu ñu nekk. contexte surtout sensibilisation la mais yàlla y code de l'hygiène qui existe mm. parce que code de l'hygiène maanaam dafa nekk benn euh, chart waaw boo xam ni ñëpp ci tënku daal voilà ñëpp ci tënku ñëpp ci war a tënku ñëpp ci war a tënku ah. parce que si pencu ndaw réew yi foofu lañ ko voté mm. moom moo tëralin nit ñi nan lañu ñu war a dëkkee si seen biir kër si mbedd mi et cetera et cetera. ci làkk ngeen ko bind nasaraan. waaw nasaraan nag lañ ko bindee. Ah, ah. waaw ça c'est de l'hygiène. léegi nag bon comme on dit nul n'est censé ignorer la ah, donc nit ñi il faut ñu xam ko. mais aussi dañ leen koy rappeler. parce que aussi le service national de l'hygiène nekkul service rek boo xam ne répression lay def. day def aussi de sensibilisation di fàttali nit ñi mais nag aussi koo si fàttali nga ñëwaat gis ni vraiment respecté wul bu boobaa nga agir. am ngeen pouvoir police est-ce que. ah mais si. Mhm. ah si ah parce que baax na ci artu mhm. aussi baax na ci. Mhm. mooy tey jii ñi nga xamante ni yëpp dañoo nekk di di xam nga respecté règle yi. hygiène yi baaxoon na jamono ju ne. waaw waaye ji la raw. ndax tey jii. aussi am na ay situation nouvelle mesure aussi nouvelle. est-ce que tey jii am na mesure yoo xamante ni mën ngeen a mën nga koo jox comme appel ñi nga ni ñoo nekk ci gare routière yi. ñoo sax ci gare mhm. routière lay jaar. Mhm. comprendre nga gis mhm. nga tey jii li situation bi nga xam gis nañ ko tey ak euh, bateau bi nga xamante ni moom moo doon dem Ziguinchor yaakaar naa. waaw Aline Sitoé Diatta donc. situation yooyu est-ce que tey jii man ngeen wax ne am na disposition yoo xamante ni jël nañ ko. ba xëy na sax lu ngeen doon bàyyi mu jàll. lu ngeen daan négocier ci beneen jamono bii du ngeen ko négocier. waaw bon kooku. parce que honnêtement wow. aussi service d'hygiène aussi. Wow. il faut le dire moo tax sànq ñu insister ndax am ngeen suffisamment de moyens. Mm -hmm. humains et matériels. parce ouais. population yi dañuy joytu lool quand waaw bon moyens humains yi moom quand des na ça moom il faut ñu accepter ko. Mm-hmm. parce que bon je sais que ni service jeune bon nit ñi dañu koy parfois di sànni xeer sax quoi wax ni bon. service de ni ñu ko daan gisee. dans le passé dans les maisons. ce n'est plus la même boo xoolee euh, boo jëlee benn exemple. bu njëkk sax boo defee ñu ne service d'hygiène ngi ñëw. bu njëkk nit ñi daan ragal mais léegi quand même. boo defee peut-être comparaison bi jël euh, suñu indépendance yooyu. boo mm-hmm. xoolee rek benn estimation. Oui. par exemple bo xoolee dans la région du Cap-Vert l'ancienne région du Cap-Vert. quoi oui. ici Dakar aujourd'hui bon. ratio bi ça tournait autour un agent du jeune autour de de de de deux mille habitants. bon léegi bon pratiquement ce même ratio actuellement ça tourne autour de 30 vers 32 000 habitants vous voyez que c'est c'est parce que nit voilà donc il y a eu quand même euh, un, voilà la montée démographique mm. bon service bi aussi il faut que mu mu suivre par rapport à à à cela. bon mais loolu taxul tamit. jusqu'à présent les missions sont en train d'être faites. Mhm. parce que boo xoolee même am na ay stratégies yoo xam ne ñu ngi koy développé depuis début 2019 bi ah. Mhm. depuis dama un an léegi. Mhm. maanaam dañuy faral di def naa chaque région duñu lay instruire. mooy ñuy def des genre opération coup de mhm. moom la tuddee plan aar askan bi. si sa jamono yi nga xam ni. Mhm. si jàngoro yi nga xam ni da ngay jël mobiliser les personnels yi nga nekk dans les différentes brigades de la région. Mhm. nga mobiliser leen indi leen si benn brigade. ñu jàppale ko pendant deux trois jours. ñu def des des des des investissements surtout par par à la prospection domiciliaire dugg si kër yi. yooyu aussi dafa nekk méthode yoo xam ni ça permet ñu gën a en tout cas euh, booster. notre indicateur colonel dafa ngi wax euh, tamit euh, sensibilisation mhm. di insister ci volet boobu mais fu mel nii Dakar mhm. am na ay quartiers yoo xam ne jamono ji ñu ngi jànkonteel ay problème mu ndox tey koo bëgg a woo ci hygiène mu mhm. am jafe-jafe ndox moom ndax raxasu bi amul beneen solution bu ngeen di proposé boo xamante ne dina yombal foofu bon je pense que raxasu bi quand même euh, boo xool ñu waxante dëgg beneen alternative bi moom mooy surtout utiliser les solutions hydroalcooliques Hmm? yi ñuy jaay ni si pharmacie ak yooyu. ko voilà mais yooyu aussi il faut dire que ni bon du ñëpp ñoom ñoo am porté boobu alors que ndox ak saabu quand même bu ñu waxante dëgg quand même yomb na nit ñi bon yomb na. pour pour pour pour pour pour nga raxasu. xëy na ndox bi li ñuy plaidoyer moom mooy que pour que vraiment ndox mi mu am une disponibilité. vraiment ndox am waaw total quoi. dans dans dans dans dans hmm. 24 heures sur 24. c' est ça le souhait parce que bon quand même l'eau c' est la santé c' est la vie mais vraiment c' est la santé. tey jii booru Sicap rek ñëpp ngi jooytu ndox bi. voilà c' est ça donc bon peut euh, ñaan moom que mooy que les services nga xam ne ñoom ñoo chargé la distribution de l'eau vraiment ñu def tamit ñoom seen kàttalaay hmm. pour vraiment assurer une de de. pour ndox mi am voilà pour waaw pour ndox parce que laal aussi dinañu jàppale. Mhm. et puis di seen cër la aussi pour jàppale xeex bi nga xam ni. pour ñu gaaw fi génnee feebar bi loolu aussi nekk na. quelque chose am na am na leneen lu am solo fu mel ni euh, Touba. Mhm. mën nañ considérer ci Sénégal mooy épicentre euh, li nga xamante ne mooy mooy mooy feebar bi suñ ko sañee waxee noonu. Euh, mhm. foofu noonu. wax nga sànq dispositif bi ngeen di jël. si structure hospitalière yi ñoom seen. pour la population. dafa am noo xamante ne noonu la ñu tàmm di dëkkee. Mm-hmm. Euh, ci ci yenn ci ci gox yi ci réew mi. Mm-hmm. foofu noonu liggéey gi naka lay demee sur le terrain parce que il faut ñu jël tamit en compte les réalités socioculturelles. oui oui bon en fait il faut dire que ni liggéey bi moom yombul sincèrement liggéey bi yombul sur le terrain parce que bon xam nga jusqu'à présent ñu ngi dégg même dans la presse des gens yoo xam ni parfois. Euh, di véhiculer des des des des des messages comme quoi que feebar bi amul. Mm. te xam nga loolu tamit dafa nekk loo xam ni bon man daal franchement rafetlu ma ak kàddu yooyu ah, moom ñooñu moom maa ngi dalal sa xel. brigade de recherche. waaw mu ngi ciy def liggéey bu am solo fi mu ne nii. ñi doon wax ne amul yëpp. woo nañ leen déglu nañ leen. ba léegi nee na ñoo ngi xeex affaire bi. ah voilà voilà je pense que bon c'est ça parce que mm. aussi bu fekkee ni aussi nit ñi dañu takku. Mm. pour euh, vraiment euh, ànd ak askan bi pour euh, xeex quelque chose. Mm. bu fekkee ni dafa am d'autres propos yoo xam ne dafa dem yoo xam ni pour pour. découragé. Mm-hmm. bon dafay même à la limite découragé. Mm-hmm. non seulement les acteurs yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi porter ce combat. Mm-hmm. mais même population bi mën nañu am ay doute. parce que aussi am na ñoo xam ni euh, influence leen dafa yomb. te bu boobaa aussi mën nañu xaw a négliger. peu les conseils yi nga xam ni ñoom lañ leen di moom lañ leen jox ou bien sax waaye bu ñu waroon taxawaw pour xeex ñoom aussi de leur côté. feebar bi dootuñu ko defee noonu. te bu boobaa aussi bon vraiment day xaw a nasaxal un peu. liggéey bi daal léegi ñoom aussi aram gis nañ leen parce que. Sénégal xëy na dispositif bi nii dañ koy dañ koy na dañ koy dàbbali mhm. mais gis nañ ne bi ébola amee daanaka xeet bi xeetu panique bu mel nii moo amoon mhm. xëy na bi doole ji mu ñëwee ébola mhm. demeewuloon noonu trop mais am na dispositif boo xamante ni defoon ngeen ko déjà taxawaay boo xamante ni amoon bu ngeen di def retour sur expérience pour adapter ko ci jamono bi boobu lan ngeen ci jàngatoon ci taxawaay boo xamante ni di ngeen ko mën a dugal ci lii xeex bi nga xamante ni tey contre le coronavirus il faut dire que vraiment loolu dafa nekk une très bon expérience expérience Ebola bi dafa dafa nekk loo xam ni pratiquement base yooyu moom moo ñu permettre aujourd'hui ñu mën a taxawaay taxaw taxawaay bi nga xam ni moom la ñu gis tey au niveau du ministère de la santé au niveau du pays. Mhm. parce que bon expérience bi nga xam ni jotoon nañ ko euh, capitaliser. Mhm. dundu si biir euh, gestion kaw Ebola bi. Mhm. aujourd'hui boo xoolee fondement euh, stratégie ñuy jël yëpp. presque foofu la jógee. foofu tax na aussi euh, l' approche multisectorielle nga xam ni surtout. avec la notion de One Health la. Mm. Mm. foofu si Ebola bi foofu la gën a travailler. Mm. ba aujourd'hui dafa nekk loo xam ni dafa faciliter vraiment liggéey bi ñuy liggéey. Mm-hmm. lëkkaloo boo aujourd'hui dans les frontières. Mm-hmm. comme pour pour ma dellu si mm-hmm. actuellement c' pas uniquement les équipes du ministère de la santé qui sont dans les frontières. y a la police a les douanes y a la douane. y a là mhm. et qui ont été capacités hein. Mhm. xam ne depuis Ebola am na si xam ne sax yenn équipement yi même depuis Ebola des thermoflash et tout. Mhm. et actuellement ils participent d'une manière euh, très très significative. et d'une manière très bien satisfaisante. à contribuer à, à la surveillance à côté des, des, agents de santé qui sont travaillent avec eux. Mm-hmm. Donc c'est pour dire que bon vraiment c'est cette euh, approche de collaboration là. Mm-hmm. vraiment c'est une expérience bu ñu jëlee si gestion Ebola bi quoi. Mm-hmm. fu mel ni prison yi euh, duñ koy wax mais euh, gis nañu communiqué boo xam ne administration pénitentiaire defoon na ko. ngir wax ne dañuy contrôler visite yi seggaat ko bu baax. ngir fexe daal di. fexe feebar bi bañ a àgg. Mhm. mais euh, même bu dee. suspendre mhm. nañu lu mel ni audience yi dafa am ay nouveau euh, détenus bu ñu leen mënee mhm. woowee noonu ñooñu di yegg si. lan mooy tey li nga xamante ne mooy doon filtre. pour que tey ñu ko. bu ci amoon kenn ku am dara mu bañ a yegg si biir. bon euh, xam naa ni de bon pour l'instant gis nga monsieur le ministre. de la justice de la il a pris vraiment aussi une décision allant dans le sens de décisions prises par euh, son excellence monsieur le président de la République pour suspendre les audiences. donc c'est dire que mm. voilà donc non non je pense que c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est enfin ce que j'ai compris pendant trois semaines même mm. est-ce que vous avez vu. Mm. donc tout ça dafay contribuer pour minimiser le risque.

xaju fa. waaw waaw. loolu ce que yéen aussi. prison est-ce que seen domaine Covid moom il faut dire que ni xajul si benn pays quoi. Mm-hmm. waaw boo xoolee même pays nga xam ni bon ils sont économiquement solides et tout boo gisee actuellement ñu ngi koy yëg. Mm-hmm. donc à plus forte raison nos pays aussi quoi donc loolu moom moo tax bon vraiment nu ñu ngi ñaanaat encore quoi. pour que vraiment population bi ku nekk fi nga nekk. Mm-hmm. vraiment nga contribuer si. à la lutte. vraiment nga nga nga nga def si sa kamtalaay def si lu la war daal. def sa warugar parce que bon si on ne le souhaite pas. la situation encore euh, s'aggrave. peut-être il peut y avoir même d'autres décisions. yoo xam ne xëy na moom mooy gën a contraignante pour les populations. boobaa aussi dafay gën a métti si ñëpp. donc moo tax daal vraiment man su ma suwee. mooy que sénégalais bu nekk at ku nekk foo mën a toll. di déglu aussi ce que les services de santé di joxe comme message. ku nekk aussi fu nga nekk li nga si mën a. mettre en œuvre nga jëm ko dafa def sa li nga mën quoi. Mhm. que parce que combat bi aujourd'hui bu fekkee ni Covid bi rapidement boosté nañ ko hors du pays. ce sera vraiment une victoire pour tout le Sénégal et non pas pour uniquement le ministère de la santé et de l'action mhm. sociale. merci merci euh, colonel dinañ ñëwaat euh, si moom si kanam mm. tuuti ñu dem seetaan publicité.